affectation bi nga xamante ni ñu bëri ñu ngi ciy wax euh, général Kandé euh, sa gis-gis parce que da ngay yàgg di wax ci kuréel googu di armée ak taxawaay bi nga xamante ni politique yi wala yéen député yi war ngeen ko ci am. waaw damay damay leeral ni que ñun dañu ne woon sax nañu may gay yi ba cent premier jour yi dem ñu xoox lu lu ñu xalaat wala lu ñu gis ci doxalin réew mi fi ñu toll. am na yu bëri fi jàll yoo xam ne mënoon nañ ci àddu. parce que am na yoo xam ne sax ñun dañu ci doon xarab am ñu taxaw di ni euh, jikko yi ñii ñoo ci gën ak yooyu mais jàll na waxuñu ci parce que jàpp ni yooyu yëpp peut-être ñoom politique politicienne la ñu demee woon mais ñun gis nañu réalité bi feeñ na waaye waxuguñ ci bo waaye lii mii dafa nu mu demee ni dafa laajoon man personnellement daf ma daf ma interpellé en tant que personne en tant que député parce ñu bëri dañuy nii bu ñu wax ci mbirum armee bi c'est sensible c'est parce que c'est sensible que dañ ci war a wax parce que bu ñu seetaanee armée bi jàng tàggat yi ñu war a am réforme yi ñu war a def équipement yi ñu war a def defuñu ko ci ba muy war di yaakaar nañ ko bàyyeel ñu ko xam rek ba bés am ñu soxla leen ñu jàng ñu découvrir ni que fañ leen foogee woon newuñu fa parce que ay nit kese la ñoo nit boo leen bàyyee sans surveillance du kii loolu tax suñu constitution dafa ne armée ci exécutif la nekk mais exécutif législatif da koy contrôler moo tax ñuy ñëw assemblée nationale seen budget ñuy saytu waaye député yeeg société bi dafa démissionné ne armée nañ ko seet nañ ko bàyyeeg ñooñ loolu tax depuis vingt ans gaa yaa ngi doon def Casamance loo leen neex di ay monsieur Casamance di dem ak dëkk di nee nañ ñu bàyyi ñu négocier enrichir ji de xam ngeen ñëpp xam nañu def lu leen neex te réglewul problème bi ba ñu bëggee régler problème bi il a am ñu jël décision yu gën a kawe donc waruñu nangu rek di seetaan ay vingt ans conflit bi di am ñuy miiner réew mii am ñu ci enrichir wu am ñu ko def seen business fekk parce que dañu ne affaire armée lañ ko doxañ fële waaw la mbir mi nag la ma ca waroon wax wax naa wax naa ko dama jàpp ni que c'est assez sérieux Euh, dégg naa ñu bari ñu ci wax am na ñoo xam ne bu ñu waxee ñu ne pouvoir discrétionnaire chef de l'État lu mu def déedéet li indi ñi fi jógee ñu jëlee leen fi parce ay chef de d'État wala ñu amoon pouvoir mais dañ ko jëfandiwul nañ li ko waroon jëfandikoo donc bu ñu gisee pouvoir discrétionnaire du pouvoir absolu du lu la neex nga def ku nekk am nga sa carrière ak sa sa kii nu mu war a demee. buñ la mayee buñ la mënee teggi sax sans expliquer pourquoi am na nu mu war a demee loolu la ñu wax ci mbir mi et surtout bu fekkee ni kiñ ko def mënul wax député bi war na ko mën a waxal parce que on dit que l'armée c'est la grande muette loolu moo ñu fi bàyyi bu ñu gisee lu jaadu lu mën ne ay rëq-rëq ëllëg dañ koy teel a wax parce que ñu mënul wax boo leen di mënuñu manifester mënuñu kaas boo leen di teg loo xam ne teguwul ay nit lañu bu ëllëgee mun nañ ko fajee neneen xam nañu gis nañu Niger lu fa xew ak frustration yi aw ci biir donc nañ bu ñu wax ni que problème bi nañ ko nëpp nëppal man bokk ma ci ñuy wax ne eh, que ñooñu ñu ñu koy wax ñi dañuy bëgg a layal gars yi rek quoi. ce n'est pas politique et le lieu s'y peu j'entends bien j'ai entendu toutes sortes de de choses d'abord première chose il faut se méfier de dire qu'on ne s'occupe pas de l'armée l'armée reste à la disposition des civils et une question éminemment Et tous les pays qui ont refusé de réfléchir sur leur armée, quand on a eu des situations de crise, ont souvent découvert que l'armée n'était pas prête du tout. On l'a vu dans des pays qui sont actuellement en guerre, mais on l'a vu dans des pays traversés en Afrique, le problème majeur de nos pays, c'est les armées. On a vu la guerre au Soudan et tout ce que ça produit. Euh, le Zaïre, qui était un immense Congo, se faire envahir par un petit pays alors qu'il croyait disposer d'une armée hyper parce que le contrôle que le Parlement et les autres corps de la société devraient faire sur l'exécutif, y compris le bras armé de l'exécutif que l'armée n'est pas fait efficacement. Je l'ai dit l'année dernière à l'Assemblée nationale. J'ai dit on ne peut pas voter des budgets donner à l'armée, savoir si ce n'est pas bien utilisé, si les équipements ne sont pas à la hauteur, si la formation n'est pas à la hauteur. Alors même que dans, nous sommes dans un monde, par exemple, où on change. Vous voyez les, des, petits, des pays qu'on croyait petits avec l'utilisation des drones, de, de, de, de l'intelligence artificielle, etc., etc., arrivent même à compétir avec des pays beaucoup plus puissants. l'a vu avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan euh, euh, dans le Haut-Karabakh. Donc, la société doit s'intéresser à son bras armé. C'est une folie je le dis clairement, c'est une folie de dire que l'Assemblée nationale et les autres ne doivent pas réfléchir sur l'armée. Mais par exemple, ce qui s'est passé en Casamance pendant des vingtaines d'années où il y avait des messieurs Casamance qui faisaient la pluie et le beau temps, qui allaient amener des mallettes et participer à prolonger le, le conflit, ça, ça aurait dû interpeller au moins l'Assemblée nationale. Mais non, dans l'Assemblée nationale, il y a des secrets qu'on livrera à la place publique. Mais aux États-Unis ou comme ailleurs, il y a des commissions spécialisées avec des gens qui, sont, qui ont les accréditations nécessaires, les députés qui, sont les, qui ont les accréditations nécessaires pour interroger de ce qui se fait, comme dans quelles conditions on équipe, dans quelles conditions on forme, dans quelles conditions on emploie, dans, etc. Sinon, on est dans une dictature. Je rappelle que Rome, quand César revenait de guerre, quand le César revenait de guerre, il rendait compte au sénateur. Et quand il y avait des échecs, on lui demandait pourquoi. Parce que c'est nos fils, c'est nos enfants, c'est notre budget qui va. Bon, pour revenir au cas concret qui se pose, j'ai dit ce que j'avais à dire, l'essentiel dans le tout, je n'y reviendrai pas. Il me semble que ça a été compris et tout le monde sait vraiment qu'il y a un contexte, quel que soit, on ne peut pas cacher, se cacher toujours derrière les pouvoirs discrétionnaires, derrière comme dit pour dire que les gens, qu'il y a des gens omniscients qui savent tout faire, alors que hier, ils, étaient loin de ces questions-là. Hier seulement, ils étaient loin de s'imaginer même comment l'armée fonctionne, les, les, gens qui dirigent le pays. Donc on peut pas nous, opposer ça, quoi. Euh, Ce n'est pas un droit divin. Il y a une logique et des normes qui commandent à le... Vous ne le faites pas. Vous provoquez la frustration de ces, des hommes. Demain, ils peuvent se révolter. C'est ça qui a conduit nos pays dans le désastre. Donc qu'on arrête de nous opposer, c'est de l'incompétence et de le manque de sérieux d'opposer aux gens le, le, pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire doit obéir à une certaine logique des traditions et des normes.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 713 vingt 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor tax